asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalib yi noo ngi santaat sunu borom tabaraka wa taala di julliwaat ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di feddaliwaat sunu yaakaar ci seyxuna ahmadul xadim di ñaanal sëriñ seex mbàkke moom sëriñ saalihu mii toog yal na yàlla may ko fanu gudd lool wa ànd ko wér-gu-yaram dolli ko kàttan jàppale ko ba mboolem naal yi mu naalal liggéey lislaam yëpp suñu borom defal ko ci ndimbal ba mu àggale ko te am ci ngërëmul sëriñ bi tañ ànd kook moom mbokk yi ñu àndaatak ak yéen toogaat fii ci jataay bii nga xam ne jataayub sant yàlla la waaye jataayub sant sëriñ tubaa la muy jataay bi nga xam ne saa yuñ masaa agsi fii sëriñ Cheikh dana yëkkat yëkkati lu kàddoom mu jëmaat ci mbooleem njabootu sëriñ tubaa gi ginnaaw ba mu leen santee ba noppi te jiital ci cant gi ak ñaan gi nag kilifa yoon wi di sëriñ Muntaxa ak mboolem ñu ngi ko bokkal ñëpp di santit mbooleem seexi sëriñ tubaa yi ak taalibey sëriñ tubaa yi mu yëkkatiwaat ka loxoom nag di ko tàllalaat ci mbooleem ñi nga xam ne bu ñu masaa agsi fii daanañ jàpp ci liggéeyu ba nga xam ne moo di liggéeyub xelkoom ba te loolu moo di xel xelkoom liggéey ba noppiwaat na ñu jàpp ko gaawu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru wolof dëppoo ak fukki fan ak juróom benn ci weeru tubaab mu di gaaw bi topp ci gàmmu gi incha allahu rabbi loolu moo tax nag ñu toog fii ci wetam muy yëkkati kàddoom nag di ci soññ ñi nga xam ne suñ tuddee ñii ci seen kanam danañ xam ne yóbbaale na ñeen tuddagut ñëpp mu di sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi waaye sëriñ Cheikh Anta Mbàkke moom sëriñ Modou Rokhaya ak sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Abdou Lakram sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Ibra Ndar ca Daaru Salaam ak mbooleem nag ñi nga xam ne ñëpp ay turandooy sëriñ Saalihu ñii di soppey sëriñ Saalihu ñii di njabootuk sëriñ Saalihu ñoom ñëpp danañ leen tuddaat ci yeneen jataay waaye ñoo xam ne sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttaliwaat bis boobu ñu toog nag ak ki nga xam ne doomam la di taalibe di xaritam di sëriñ Cheikh Amar mi nga xam ne naka jekk sëriñ bi bu liggéey bi masa agsi la ko tàmbalee ci 2008 ba 2019 ji ñu nekk saa yu ñu masaa yëkkati liggéey bi ci loxoom la ko sëriñ bi daan teg mu nekk jëwriñ ji ànd ci ak bokkam yëpp nag sëriñ Cheikh Amar toogaat nii ci kanam way juram sëriñ bi yëkkatiwaat ndigal loolu jox ko ko ngir mu waajalaat liggéeyub xel koom boobu waaye tey jii mënta ñàkk yëkkati kàdduy cant yoo xam ne dana ko jëmati lislaam bi jëme ko ci njabootu sëriñ Tuubaa gi waaye jëme ko ci sëriñ Cheikh mii toog su ko dee ñu xam ne ñun ñëpp xel koom jot na gaawu lay doon fukki fan ak juróom benn ci weeru tubaab yemoo ak fukki fan ak juróom ñett ci weeru wolof sëriñ Cheikh Amar nag nee na nam ko daan defee fas na ko yéenee tàmbaliwaat fépp foo xam ne daana fa joxe oto ak lu mu ci daan def da koo fas yéene yokk waaye fasu ci yéene dell ginnaaw benn yoon ndax amul lenn lu ko gën a ñor ci xel koom bi nga xam ne suñu borom xaasal na ko ko sëriñ bi tibbal ko ko ci liggéeyub sëriñ Saliou bi muy ak mattam goo xam ne fas na yéene ku ko séen moom nga koy séenee kon nañ déglu kàddu yi nga xam ne mooy tukkee ci moom mu ne ginnaaw bu mu jéggaloo de sëriñ bi nee na mi ngi yeesalaat ak njëbbalam ci yow di feddliwaat ak laxasaayam di gën a dëgëral yaakaaram waaye nii na di la seereel cantu xol goo xam ne am na ko jëme ko ci sa jëmm ji ci taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci moom ci ndog mii nga xam ne daloon na ko tam jàppe ko rek loo xam ne suñ borom da ko ciy fàttaliku nee na nag loolee mi ngi la mi ngi la ciy seereel ak cant gum sant boromam ci boppam waaye sant ko nag Serigne Touba Khadim Rasoul sant la ko waaye di la seereel na sant na àdduna bépp yoonu murid wépp sant na leen waaye sant na këri diine yi ndax amul genn këru goo xamante ni bii jëmmi ko ko jiite kër ga fekk ko ci hôpital ba wala ndawam fekk ko fa waaye sant na itam nag ñi nga xam ne ñooy taalibey Serigne Touba yi ak doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ak bitim réew fenn fu ne ak ñaan jóge na fa fenn fu nekk téléphone jóge na ko fa jëm si ci jëmmam ji ba mu jàppoon na tolut noonu ci nit ñi te moom xam na ne tollu ñi lépp sa jëmm jee lépp jëmm Serigne bee kon nag nee na mi ngi fetliwaat ak laxasaayam fas yéene bis bii nga xam ne moom lañ dëgmal muy liggéeyub Xelcom bi képp ku dib xaritam képp ku dib soppeem képp kuy wëllëreem ma ngi lay xamal ne foofee daal la jox rendez-vous ñëpp muy xel koom ndax moom fas na yéene liggéeyub sëriñ Tuubaa bi du ci teggi ab goppam du ci teggi ab loxoom du ci tegg yitteem ba ba muy fekki way juróom bu baax ba di sëriñam bu baax ba te loolu yàlla na yeex lool nee na mi ngi lay ñaanalaat nag yàlla na yàlla may la fan wu gudd wu ànd ko wér te nangu sab liggéey kon bokk yi bis baa ngi noonu gaawu lay doon fukki fan ak juróom ñett ci weer wi nga xamante mooy weeru gàmmu yemoo ak fukki fan ak juróom ci weeru tubaab bu ko kenn wuute ca xel koom lay doon lim ci doon dolli rek dafa wax ne sëriñ bi moom day ba mu tëddee ca hôpital ba nëga ni daa façon yéene génn gi muy njëkk a génn xel koom lay jëm waaye du jëm feneen moo tax nag mu sant yàlla lool ci bi nga ko wooyee yeesalaat ndigal li ci moom lii di génnam gu njëkk mu fa yéene takkaat ak laxasaayam wutiwaat xel koom xam ne xel koom moom tawfeex ak ndimbal rek la fay jëlee kon nag ma ngi ko fay yaakaar ci yow di la tàllal loxoom kon bokk yëpp ku ko bëgg gis nee na nang ko fekk xel koom ca liggéey ba képp koo xam ne ñëw nga fa lépp loo xamante ni bëgg nga ko ci moom rek incha allahu rabbi dana ko def na ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.